mais mën nga am beneen beneen beneen beneen sey nga am ak beneen sëy nga tiire nag leçon ci fi nga jaaroon loolu boo ko defee je crois que euh, parce que euh, se trompe tromper euh, garaawul xam nga la garaaw mooy se tromper toujours e tout le temps nga def ko defaat ko defaat ko defaat ko foofu moom dof dof rek ngay doon Euh, lippa bi wax nag ci lu mujj li moom laay jàpp euh, nga jum benn yoon mhm. dañuy wax jumte la mhm. waaye nga dëkk ci juum mhm. dafay mujje nekk maa tey je pense que loolu nekk na lu am solo ba noppi nag euh, c'est vrai yenn saa yi day nekk erreur wax na ko bu nekkee erreur nga def introspection nga wax lan moo tax lan moo indi sama déjà may déggoog nit jékki-jékki déggootuñu Mm-hmm. ñuy xuloo lu indi loolu cest à il faut que nga nangu yow toog mm-hmm. xool yow lan nga def ba àgg foofu mm-hmm. foog naa loolu bu ko nit à moitié le problème est résolu. mais nit warut a rëy ba nga xam euh, da ngay ak ndox fan ko kon mbëggeel fu mbëggeel ma sa am rek mhm. euh, amna lo meunatu fa am c'est vrai di ngeen dem ba ci biir ku nek xeyna ki bu baax mhm. euh, au fur et à mesure vous vous vous vous découvrez mhm. vous vous connaissez de mieux en mieux peut-être dina am lo xam ku ci nek teyel sa morom mais nit ki nga xam dem na ba divorce meuna am Mm-hmm. comme mën na ñàkk. Mm-hmm. mën na ñàkk ci koo xam ne rëyul. surtout ku mm-hmm. jigéen euh, ci euh, ku jigéen ki c'est-à-dire mënuñu dem ci sëy ba noppi di rëy. parce que lu bëri dafa tegu ci suñu ndodd. mais buñu naré dem aussi ci biir sëy bi namun. namuñ muñ indi ay xeex ay xuloo ay doranté ci biir kër gi fekk yéen tamit ngeen am ay dom mhm. à ce moment là mhm. autant ngeen nek en séparation mhm. ngeen xol ku ci nekk yow problème bi liko indi Bolen leen andat àndaat ci jamm ngeen andat boo leen mëntul ànd nag ci jàmm euh, euh, alxuraan wax na sey dagan na facette dagan na ku dem mo gën xiro beeg ngaañoo mi parce que bu boba vous donnez une mauvaise image

mi wax ni que l'éducation mhm. éducation. bi xalé yi léegi kenn yaratu len ah. ñun ken kenn ñu ci sëy. Ah. ken xamatul soo demee sëy lii ak li mo la war. Mhm. gisatoo sa ndey ak sa bay na ñuy sëyee comme il se doit donc yow nga dem tu répètes la même chose en un éternel recommencement. donc je disais tout à l'heure que l'éducation éducation ndaxte jigéen dañ koy yar. tay jii ni mun nga euh, jur sa dom mhm. mu reuy ndax ci su nekké xalé ngay xam euh, rëyaay du c' est pas seulement soo demee exactement c'est pas seulement euh, so demee ba sëy ci la rëyaay bi di fee douze ans non non dafa doon lo xamanteni ci ah, xale lay tambalé yo so setlo sa dom nga xam ne que ah ki dafa deuguer bop ki dafa reuy wala ki dafa melni yow ndey yow yaay xool nooy def ba jubbanti ko fekk nga koy seetlu ah, wax nga ko ci début bi mi ngi non setlo bobu nak légui mo ci amatul té parents yi kenn amatul jot mhm. kenn amatul jot tok ak doomam ñëpp ñu ngi liggéey ñu dañuy dundal mi ngi non dañuy mhm. dundal mhm. donc mu nekk lo xamanteni tay ji ni voilà lu c'est la réalité malheureusement mo fi am comment trouver des solutions man personnellement xaw ndax ndaxte parents yëpp ñu ngi dem di liggéey kenn amatul temps yar sa doom. Mhm. donc euh, on se demande. waaye liggéey du tee nga yar sa doom waaw du tee nga yar sa doom. mais ndaxte boo liggéey di nga di nga layoo de. ci lu wóor ci lu wóor ah. di nga layoo mais tey euh, est-ce que parents yi jiital nañu loolu déjà ah. avant. parce que tey jigéen boo gis wala góor boo gis euh, góor sax liggéey moo ko war dem dem liggéey mm. mais jigéen tey koo waxal man euh, sama priorité moy man tamit dem wuti. du ma jox ko àqam kay du ma. bu ne jox ko mi ngi nonu bu nek jox ko àqam. Hmm. Euh, des fois yombul ma. Ah, des fois yombul c'est pas évident. mais il faut le faire il faut le faire c'est-à-dire un jour de semaine c'est assez difficile. Mm-hmm. mais boo liggéeyee ba wàcc. 16h mm-hmm. 18h. Mm-hmm. war nga la des ci sa temps. nga consacrer ko say doom. ngay waxtaan ak ñoom. di leen gindi ci lu bëri. c'est ça samedi ak dimanche. ñu bëri duñu liggéey sa tu en profites. Mhm. pour di jubbanti sa dom ci limi def mën nga ko jubbanti. donte sax nekkook mom tous les jours. Mhm. les vacances encore xalé yaa ngi il faut que ñu kay jox akam parce que xalé yi aussi. Mhm. ñu ñew ñun ño am responsabilité ñun ño tok defar leen nañ leen jox. Mhm. éducation bi tax bu ëllëgé kenn duñu jippi ci lu wóor maman loolu moom tu as parfaitement raison ci loolu la bëggoon ñëw que comme je le dis toujours parents yi nañu am temps surtout yaay yi toog ak seeni doom yu jigéen di leen setlu mhm. pour ñu xam leen xam ñom ñoy kan ak euh, à quoi elles aspirent da ngay gis yaay boo xamante ne xamoo sa doom euh, dans dans un avenir euh, futur lan la bëgg lan moy ay rêve am comment elle est en classe ay camarades am sax xamoo seeni tur wala un truc de ce genre alors que donc doom bu euh voilà duñ koy topato mm-hmm. dafa soxla nga jege ko. Ah. mais quand on dit jege mais vrai jege gor mm-hmm. sax voilà gor gor la quoi mm-hmm. mais jigen mom donc yaay dal nañ ñu dañ ci japp bu baax ba nakte je me dis aujourd'hui tay solution bi xeyna lool la. yaay gëna jël sen responsabilité yar sen i doom yu jigéen yar len surtout ci sey et éviter toujours le montrer le bon le mauvais exemple. manam ni ngay tonto sey djëk sa jëkkër. ci ka sa kanam doom bu jigen yenn comportement yi ngay am sa kanam doom toujours essayer de montrer le le beau li nga xamantene ne mo rafet sa jigen au lieu que diko won yo xamantene dal voilà ça ne fait pas non mais c'est vrai parce que xalé aussi euh, dañ koy wax loy def rek mhm. defal lu rafet ci kanamu xalé parce que de di euh, gone go xamné duñ faté mhm. et c'est c'est très important malheureusement la société sénégalaise est ainsi mhm. euh dañu tek lu bari ci jigen ñu ñu tegoo ko aussi parce que mooy suñu wareef moo tax nag war nañ di góorgóorluwaat ci suñu sëy parce que sama maam dafa doon wax sëy potu euh, euh, euh, kaani la bu ñu def lem ci kaw boo lekkee lem bi ba mu jeex xam nga day saf saf ak suukar <laughs> amoon ngoru lekk kaani gi ba mu jeex parce que day saf saf ak kaani <laughs> waaw Fatma dëgg la ñëw si si si li ngeen wax mhm. surtout éducation parce que ngay gis parents yi léegi bu ñu yar seen doom même ñu jigéen dañ la naan sa premier jëkkër mooy sa liggéey voilà mhm. Mhm. donc déjà xale ab ku am xale bu tuuti nga naan ko sa premier jëkkër mooy sa liggéey mais bu sëyee dina négliger sëyam liggéey bi lay gën a fonk sëy bi du xam du xam àq bi mu war a joxe sëy bi et puis tamit il faut ñu wax ni que tamit goor ñi itam jigéen ni ñu waré muñ mhm. ak éducation bi ñu war si mhm. wara def si jigéen non la papa wara a éducation bobu si doomam bu goor jiko yar ci ni muy téyee jabar mhm. parce que téyee jabar itam je pense que goor ñi won nañ ko ja won nañ ko jang même bu féké ni sax da ngay gis goor ñi dañuy am jabar di doxaan am jabar di fo mais am na koy defee sax dina rafet c'est-à-dire que mun nga am jabar di tak benen jabar sax mais amna na noo koy defee bu féké ni yow amna benn base bu nekk ci yow am na noo koy defee sa jabar sa mun na am xëy na du mer mais bu fekkee ni yow da nga la bàyyi ngay dem nii nii nii naan jigéen ñi nañu muñ nañu muñ tamit je pense que côté boobu tamit war nañ ko xoolaat bu baax daal góor ñi di muñal jigéen ñi tamit te di xam ñu leen di téyee non c'est vrai parce que c'est vrai que jigéen teg nañ lu bëri ci kawam may euh, euh, euh, Maymuna mais góor aussi war nañ di di wax ak moom c'est vrai góor même bu nekkee xale on lui permet tout mhm. on lui permet tout moom mooy génn mooy dem football yi mooy dem mooy mooy baal yi mooy yaay alors que ku jigéen qui en général fait cantonner cantonné à la maison yow yaay togg yow yaay bale yow yaay fobéré yow yaay fóot boo waxee maa damay dem kii mën la foo jëm du dox guddi nga toog

dugal ci biir nit ñi mais ma bëgg ñëwaat tuuti ci ponk bu am solo boo xam ne vraiment sànq wax nga ci mhm. euh, muy dëgg mhm. Fatma tamit ñëw dëgëral ko mhm. muy euh, li jëm ci yar ak tamit surtout ñu ne sëy yemul ak lenn waaw sëy yemul ak lenn sànq yaa ngi cité sa maam parce que nañ fi ay référence euh, sama xel dem tamit ci benn waxtaan benn waxtaanu Baye Niass boo xamante ne benn instant man dama ko jëloon def ko sax sonnerie parce que day wax naan métier boo mën a métier bul fàtte Mm-hmm. nee na parce que jëf jëf bi jëm ci yàlla maanaam action bi nga war a def ci yàlla moo jiitu ci lépp te boo xoolee ba xool say recommandation la jaamu yàlla la jaamu yàlla toppatoo sa doom ba nga xamante ne day am éducation de base bu baax mm-hmm. Mm-hmm. muy ku góor ki muy ku jigéen ki li ngay jël di ko def ci moom loolu tamit ci jaamu yàlla la bokk parce que ndénkaane la donc je pense que ne xam dañuy faral di wax jigéen na nekk ca rax bés bu ay doomam màggee mu soli coquette waaw ça veut tout dire def def def euh, euh, VIP yi xew léegi mu ngi noonu mu ngi tout cest loolu boo ko waxee xëy na wax ji da nga koy ñàkkal fayda mm-hmm. mais boo ko xoolee ba ci biir mm-hmm. tey gis nga ñëpp ñi ngay gis tey ñu leen di ñëw ñuy ay jigéen bu buñ la waxoon fa ñu jaar ci seen mm-hmm. ay sëy wallaay li nga wax dëgg la non da ngay da ngay yéemu ci jàll mais def nañ ci seen doom yar goo xam ne tey seeni ay doom ñoo leen di siggil et je pense que li doon am fii may mën a jugu fi wallaay Yolande gis nga li nga wax dafa nekk dëgg goo xamante ne dañoo dem nag malheureusement orange roy dàq ak tamit dem ba nga xamante ne yi nga xamante ne moo nekkoon suñu valeur forte dañoo dem ba daaneel ko muy effrité wu chaque mm-hmm. jour muy gën di ràpp di mm-hmm. ràpp ba nga xamante ne dañuy dem ba boo ko waxee nit sax dañu naan ah loolu amatul mm-hmm. loolu xewatul fenn alors que loolu noonu mooy dëgg te comme ni nga ko waxee il suffit de d'observer nga xool tuuti wallaay di nga xam ne la woon démb de mu ngi fi ba tey te loolu mooy yoon bi itam mais mu ngi noonu boo <laughs> <laughs> Adja dafa wax lan mooy solution bi. Mhm. man euh, je pense que solution bi il faut nous créer waat école lu sëy. waaw mhm. boo xamante ne dañu fay joxe. diplôme am na école lu sëy bi la. reconstitution de la famille. waaw mais famille. xam nga famille da doon nekk ëtt bu rëy. Mhm. bàjjen ne fa mhm. tante ne fa mhm. Mhm. nijaay ne fa papa bu ndaw ne fa maam bu góor ne fa maam bu jigéen ne fa umpaañ ne fa bu yaay yarul tante yar bu tante yaru bàjjen yar bu bàjjen yaru maam yar loolu moo fi amatul léegi papa maman les enfants le chien ou le chat la télévision ak la télé <laughs> effectivement bi nag ak internet ñi ak internet nga xamante ne dañuy dugal yeneen modèle ah. yoo xamante ne dañ koy jéggaani feneen. bokkuñu ak suñu ki mm-hmm. xam nga doom limuy xol ci internet yi do ko xam. mais tu ne contrôles même pas. tu peux pas mais gis nga ñi wax fi ñi ngi wax fi euh, ñi ngi wax fi waxu sëy problème bi je pense que dans 20 ans 30 ans. Mm-hmm. xalé yi nga xamante ne ñoo màggee.

sëy bu tasso moy mhm. jamono yakuna mhm. parce que famille mom moy unité de base de la société. c'est le socle tout à mhm. fait. développer mënoo tek ben programme de développement social économique. te amul ay valeurs de base. effectivement motax tax ma suñu mami dans la tradition gisoon nañu équilibre bi. model bobu ñu waxone moy famille la grande famille. mom mo moo mom moom moo équilibre bi di continuer mais pour man model yoy war nañ ko mëna xol nan lañ ci. Euh, inspiré woo pour andiwaat ko ci biir société bi nga xamante ne. waa léegi Abdourahmane ma laaj la. xam nga ñu ngi dugg rek ma laaj la ah, taxawal ah. foofu. <laughs> ban jigéen nga gisati bu nekkee këram mu sol sër. waaw. <laughs> waaw xam nga xam nga. xam nga yaa ngi yaa ngi xool. waaw. Mm-hmm. <laughs> amatul. mais non kan, ngay kan ngay tak sax ci bopam mhm. nga ko naan way dama la tak nga ñëw ci suñu kër euh, sama kër ndek sama kër. non c'est-à-dire c'est-à-dire que lu lolu Abdou. da ngay wax ni que oui on va se marier. lan lan lay njëkk a on va prendre un appartement il est capable de me prendre un appartement où je serai seule avec mon mari euh, voilà. mu la mais que la solution c'est pas ça. oui mais man gis na. né

nijaay munoon na toog yor sa doom yar ko à ton insu waaye yow tey sa sa frère bu dóoree sa doom nga yuuxu mm-hmm. waaw il faut ñu waaw léegi kooku nu mu yaree sa doom d'accord hmm? d'accord naa ci li nga wax sa sœur bu laalee sa doom yow nga yuuxu baa nga yóbbu ko police effectivement waa ana yar mais c'est-à-dire que li nga li ñuy wax nii au niveau familial ah. mënatul nekk mais dañuy xool fu au niveau au niveau familial. Ah, mënatul nekk mais au niveau fam euh, social. ñu ah, ngi koy récupérer. Mm-hmm. bi kat ci famille bi lay commencé gis nga jël nañu modèle gis nga jël nañu je ma koy faral di jël nañu modèle bàjjenu gox. waaw war nañu mën a jël nijaay euh, modèle nijaayu gox. balaa ah mujjee. Oh, oh, nijaay waxta nga bàyyi sa nijaay ci sa biir kër. non c'est-à-dire que parce que modèle yi nekk ci biir kër. man li am ñoo ñoo doxatul. Mm. mais il faut mu dox. gis nga gis nga gis nga xale yi ngay gis ci mbedd mi. ñu def seen criss cross. di yow 15 heures wala 16 heures. waaw di ataaya ba 19 heures. waaw koo ci gis da nga naan 18 ans la am wala 15 ans et cetera ñu ngi 35 ans wala 40 ans. <laughs> parce que xam nga li ma la non mais. <laughs> taw màgg xam nga la mën a mën a bu njëkk ba d' initiation. effectivement nga jéeg-jéeg ñu dugal la néegu léegi am na lu la war ci biir. dëgg la dëgg na taxawaay <laughs> fexee ba ñi nga xamante ne. ñoo doon jël en charge initiation boobu. <laughs> Mhm. suñu jigéen ñi ak suñu góor ñi ci ba ñuy nekk ndaw pour fexe la ñu nekk ay mag yu responsable. Mhm. ñun na lañ ko mën a andiwaatee ci biir société pour ah. man bàjjenu gox benn paa la. Mhm. war nañ ci mën andiwaat yeneen. ak ñeneen nijaayu gox bàjjenu bàjjenu gox et cetera pour mën a xoolaat Mm-hmm. loolu nak model de société le mm-hmm. bu ñu war a boo xamante ci wara mëna taxaw pour ñu defar ko. Mm-hmm. Ah, parce que dina dina metti dal Abdou dina métti. je suis d'accord avec toi li ngay wax dire que utopie la. non non c'est pas une <laughs> utopie c'est-à-dire ce que je veux te faire comprendre c'est ah. que je suis tout à fait d'accord avec toi. mais. loolu il faut que mu commencé ci biir kër yi. ci biir kër yi xam nga bo nanguwul yow. ki nga bokal deret di laal sa doom. doo nangou ki nga xam yow ana man ana yow la muy laal sa doom. cest buñ ko waree def. Mhm. nañ nangu reprendre li fi maam bàyyi woon. effectivement. Mhm. Mhm. xam nga yow du vacances la doon jot nga dem ci sa kër nijaay. baa nga dem sa kër maam. effectivement waaw ban xale moo demati kër nijaayam wala kër maama. amatul amatul. amatul waay. la maam doon def. ci yar ci xale. amana sax xeyna na yow sa yaay mi nga xam da daan won liggéey mhm. mu ngi won ci biir kër gi ko won def ci yow mhm. mais sa m'a da ko doon def ci yow mhm. parce que setlu bi mak am xeyna yow yaay amoko ci won mais lool yëpp amatul yow léegi c'est vrai aduna yakuna ba nga xam tu te dis ah baa bu ma ko yóbboo kenn ko dara je comprends c'est vrai on est dans un monde d'angoisse d'angoisse dëgg la mais monde angoisse boobu ñun ñoo ko créé aussi mm-hmm. Mm-hmm. parce que ku ci nekk da nga téye sa bopp ci sa biir kër mm-hmm. foog ne ne que yow rek doylu nga ci sa bopp mais nit ku nekk doylu woo sa bopp am de ah, loolu la nag euh, ma nit ku nekk doylu woo sa bopp te couple bu nekk aussi doyluwul boppam couple ñaar donc mënuñu ko doxal parce que mënuma comprendre ngeen nekk yéen ñaan ñëpp euh, le plus souvent maintenant deux jeunes yoo xamante ne amoo leen expérience demoo leen fenn xamoo leen dara de la vie mu ngi noonu yéen àdduna di leen dab ndànk naa ngeen bëgg rek len do sen problème yi motax tax mbëkkan motax rek moo tax <laughs> indi euh, problème oui je suis libre oui euh, voilà c'est ma vie ça te regarde pas mhm. non kenn su ci naree dugg ah non ça te regarde pas c'est mon couple c'est mon mari donc euh, tu ah, n'as ah. rien à dire non ah, la ñuy répondre maintenant c'est là c'est comme ça non le génération yi demee légui mhm. ku nekk personne est responsable de chacun est responsable de soi-même mhm. ku nekk yow yaa lijjanti say problème yaa defar say problème moo taxit amoo expérience xamoo ba ben Voilà. Donc, ah ben, quel dommage. En tout cas, ah oui, ah oui. Fatma Oui. man ki man maa ngi àggil mais seulement man xam nga man en fait sànq yéen a ngi wax Abdou Rahman mi ngi wax yow yaa ngi wax. man li ngeen di wax man personnellement je ne suis pas d' accord. parce que yéen di ngeen ne. par exemple sëy yi ki ñu wax ku ñu wax nga sëy sa kër goro doo dem doo def li doo def li mais yéen a saa yi belle famille. ñoy cause de divorce. Mhm. loolu gis en fait c'est en fait man je me dis que cas par cas la. ku mhm. nekk ak sa cas te ku nek sa cas ni ñu koy étudier la. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu yóbboo seen jabar maison familiale. dinañ fa def jabar ji lo xam ni. dootu fa mëna sax mais parce que éducation de base ba mo manqué ci biir ci biir famille boobu noonu nag. moo manqué éducation de base rek la soo genre famille yoy non dafa fekk éducation ñom sen bop ñoo amul. éducation mais une famille bien éduquée une famille qui se respecte tey di ni sa dom du tak jabar nga mu indi ko ci biir kër gi mm-hmm. nga nak ko dundaloo ci yenn te alors que mm-hmm. doomu jambour la mm-hmm. da nga yor ay doom yoo xamante ni war leen jël ñu yobul leen tamit ku nek so xoolee sa bop rek voilà la nga xam ne nanguwoo ku ko def sa dom bu jigéen bu nangu ku ko def ci doomu jigéenu jambour en fait c'est tout le problème il est là et je pense que c'est un réel problème té vraiment war nañ ci mag ñi ci biir dekk bi war nañ ci wax ah, war nañ ni ko seigne ko sëñ Mor Mbaye di waxee ndëpp jotna na <laughs> li jotna parce que divorce yi bari nañu torop torop torop trop euh, te lolu war nañ ci war nañ ci mëna wax je pense que samedi prochain euh, dinañ ci ñëwaat encore parce que da di sujet boo xam dinañ ci euh, ñëwaat dinañ ci ñëwaat donc mais pour samedi prochain mom mm-hmm. tay ji dama bëggoon am bép jigéen wala goor bo xamantene mm-hmm. dafa sëyoon tas divorce témoignage yooyu laa bëgg am koo xamante ne sëy nga nga tas aujourd'hui pour yeem nit ñi ci mm-hmm. divorce wax ni que divorce lan lay indi bi nga sëyee ba léegi lan la la indil lan la la wàññil lan la def ci say doom donc témoignage yooyu képp koo xamante ne bëgg nga témoigner bëgg nga indi sa contribution mhm. pour euh, ñu jéem xol ñuy defaraatee yëf yi mhm. mën nga ñu bind ci euh, tam-tam baa nga ñëw fii nii ci RTS 2 rek mhm. bay fi say coordonnées man ma contacter la kale reportage bi ñu ñëw ñu interview même su dee dañuy flouter kanam yi sax on peut le faire sans problème mais au moins ñu euh, dégg ay histoire yo xamantene ay histoire réelle la nit ñi nga xamantene dañ ko dund ñu mën ci jang parce que ci réel rek ci vécu la ñu mëna jangé donc pour xol loolu tamit ndax mëna na indi effectivement de toutes les façons euh, samedi prochain ci ñëwaat. Mm-hmm. Euh, solo parce que de divorce bi mu commencé ci euh, <laughs> Sénégal. De mm-hmm. de encore une fois bu <laughs> samedi prochain. ci histoire de couple. Mm. dañuy conseil beauté Fatma conseil beauté classe alors Fatma tey nag euh, comme ni ma ko doon waxee nga ñëw nag ci peau grasse. waaw euh, ay peau grasse ak xam nga peau grasse moom li si ëpp sax day ànd ak bouton. waaw li si ëpp sax day ànd ak bouton kon en général ñi am peau grasse dañu faral di am picc. Ah, même bu baax sax bu fekkee ni benn la wala ñaar. des fois de temps en temps day génn. Mhm. donc juste pour euh, pour ñëw ci loolu tey dañu indi benn démonstration déjà pour pour traiter Pitch picc si mhm. kanam à à partir à base de muscade. muscade ci boppam après oui mhm. après ni ngay entretenir kanam bi ak benn lotion boo xamante ne dina wàññi ni nii kanam bi. d'accord voilà donc nous commencer par euh, par traitement bouton bi. Mhm. donc euh, première première chose bi may jël mooy damay jël mew mew bi ci bopam wa mew mew normal. waaw miskat bi ñuy def mais bu ñuy naan la de miskat ba ñuy def ci ci ci ci bisaab bi. moom la ñuy def ci kanam bi ci meew bi dina neex de xam naa daal dina neex léegi nag boo boo boo boo jëlee meew bi. waaw da ngay daal di jël muscade man donc man indi naa doomu muscade xam nga doomu muscade bi toujours mooy gën a. mooy a waaw mooy gën a bees mhm. mbuus yi donc muscade bi la ñuy jël ñu gratter ko. Mhm. bu ñu ko gratter ba mu ba mu bëri. Mhm. mun nga si def benn doomu muscade lan la. bu ñu ko gratter bu mu bëri. ñu jël ko def ko ci meew bi. waaw bu ñu ko defee ci meew bi nag. Mhm. meew bi war naa gën a mën a mën a gën a yem. Mhm. xam naa damaa xaw a xaw a. da nga xër xër waaw damaa xaw a xër. Mhm. léegi tuuti meew ngay jël. def si muscade bu doy léegi nag boo ci defee muscade bi ak meew bi moom ngay jël nga nga nga jiw ko si picc bi. ah bon oui moom ngay jiw si picc yi mais mais euh, maa ngi ne muscade bi mais meew bi dafa war a far. dafa war a far. d'accord meew meew bi muscade bi moo koy faral. Mhm. ok d'accord li ma def ci meew moo bëri. d'accord même tuuti boo jëlee tuuti meew. xam nga kanam tuuti ndox rek ngay def ci meew tuuti ndox ngay def ci meew wala nga jël tuuti meew meewu ndox. day far nga jël ko def si muscade bi ba mu far. Mhm. nga jël ko def ko ci ci ci picc yi. Mhm. voilà boo ko defee boo ko si bàyyee dix quinze minutes nga fomp ko dina mën a dañ. dina dindi picc yi. léegi boo xet bi moom. bu <laughs> bu ñu paree ñu jox ko mais mun naan. mun naan ak bisaab bi moom. <laughs> waaw bu ñu paree da nga si def suukar mais balaa ñu la koy jox da nga si xaw a def tuuti suukar rek ndax mu gën a neex. mu ngi noonu ñu ngi ñëw boo ci defee farine sax mu nekk beñe <laughs> léegi nag damay boo boo boo boo traité picc yi. ba pare mais ñaata temps nga koy bàyyi. ci picc bi nañ ko ci bàyyi ay 15 minutes. ci picc yi di nga gis sax day xaw a saf. Mm. d'accord day day xaw a saf bu fekkee mooy picc yooyu di di am ndox ak yooyu. waaw xam nga pogras yi façon boobu la ñuy am. mën nañ ko def ci kanam gi yëpp. waas mais si picc fi am picc daan si kaw picc nga koy teg boo ko tegee si kaw ko à minutes nga da ngay gis picc dañuy mm. d'accord day wowal picc yi bu ko après nga jël lotion boo xam day na nekk sa démaquillant mhm. bu fekkee ni yow doo utiliser di si fomp matin et soir mm. donc lotion bi damay jël euh, eau de rose wa defe rose ñëpp xam ko amul itam rose mhm. fleur bi la fleur fleur de rose bi mhm. xooj ko ci eau minérale ndoxu ndoxu butéel. Mhm. xooj ko ci bàyyi ko ci ba ba ba ba ba xob bi yàbbi. Mhm. bu yàbbee nag buñ ko mën a jël fomp ko sa kanam. Mhm. léegi eau de rose bi laay jël. eau de rose bi su ma ko jëlee dama ciy def lem. waaw dama ciy def lem. bu yem rek xam naa ni moom bii nag wante eau bi moo koy yàq ndoxu bi nee na ndoxu butéel boo jëlee lem bi dañ koy def si eau de rose bi. waaw nga jaxase ko. boo pare nag dangay day nekk lotion rek. Mm. lotion moom ngay fompe sa kanam moom ngay fompe sa kanam. eau de rose bi ak miel. ak miel moom ngay fompe sa kanam du tax mu mu ah, kii muy collé. waaw kañ wax déedéet parce que miel bi ngay def si o parce que miel bi tuuti ngay def. d'accord mais que xam nga miel. am na am na effet yoo xam ne dina ko def si si si yaram ñu ñu bëri dañ ko ignorer. miel mhm. mun na nekk cicatrisant. Mhm. miel mun nga am. góom mhm. nga def ci miel mu wéral ko mhm. donc dafa dafa am effet bo xamni day xaw melni genre ni genre euh, garab si kaw solanko ça soigne mhm. exactement c'est un antimicrobien en hein, même donc lem bo bo boo si defee benn kuddu

maquillage mhm. pour grâce. Euh, si si. bon euh, surtout avec tanga aussi alors mais avec le miel aussi sur le miel bi sur visage non du ça va rose tout <laughs> mais ça va faire des bisous sucrés. bisous. <laughs> lem bi du bëri <laughs> yéen mi di def euh, euh, lotion bi <laughs> bu la topp Abdourahmane

de toutes les façons mu ngi noonu tey euh, Fatma fi la génn ak ñun ñun mi nga xam duñu am peau grasse euh, kon nak weekend et on peut faire ça combien de fois par semaine. on peut l'utiliser tous les jours. tous les jours tous les même euh, miel bi même. miel bi ak muscade bi bi ak muscade c'est en cas de bouton. d'accord. Mhm. Bo amé bouton nga koy def tek ko sa bouton da ngay gis ça a un effet très rapide au bout de 2-3 jours vous pouvez mhm. utiliser bouton yëppay dañ. Mhm. donc bouton yi venu ñu tu nga bàyyi nga bàyyi bu picc yi demee rek nga bàyyi bu picc yi ñëwaatee nga defaat nga commencé waat parce que il faut dire nag que Euh, astuce yi ñuy joxe. Mhm. en fait ay ay loo xam la du garab booy naan. Mhm. donc c'est superficiel. Mhm. effectivement mooy li nekk si kaw lay. kaw rek lay par contre nag bu féké ni ce pitch nak feebar la. demal seeti dem da ngay dem ci docteur mu faj la. li bu dee féké ni nak da ngay am bouton occasionnel comme jigéen ñi sax yenn bu ñu tollé yenn période. ñu voilà seen kanam yi commencé am bouton ak yooyu mun nga utiliser bii rapidement mu dañ. mais bu féké ni leneen la nak par contre da ngay dem ci docteur mu faj la. kon nak ñoko ko mu nek euh, tay suñu conseil euh, beauté di le bu baax euh, Fatma et puis. Euh, samedi prochain beneen. Euh, conseil beauté si conseil beauté mais mu ngi noonu. Mm-hmm. alors label 221 donte nak suñu lekkat ñewul mm-hmm. mais du tee euh, ñu def ko tay nak ñu fas waxtané mm-hmm. euh, stylisme ak accessoire. waaw stylisme ak accessoire bu ngeen ya et puis qui comment dire encore émission yi la passé. ñu ci doon wax. parce que dafa nek ben secteur bo xamante vraiment dafa nek en ébullition. effervescence muy yëngu bu baaxa baax. walu stylisme modélisme. enquête bi nga xamante wa waa def nañ ko bu mujju bi.

Ma vision et mon objectif, c'est pour les Africains, pour la consommation locale. Ça ne suffit pas que de manger du riz, du mil, maïs pour des consommation locale. Mais il y a les accessoires, il y a d'autres styles de faire. Le meilleur dama tissu. Tissu wax par exemple au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Ça c'est le plus beau, euh, le plus beau tissu que les Ivoiriens aiment. Donc c'est de là-bas maintenant que je me suis inspiré et puis revenir aussi au pays chez moi, essayer de faire quelque chose dessus. Mais les gens, de nous me comprendre pas parce qu'ils se disent ouais, euh, tissu d'air, tissu raffia, tissu toile d'Égypte. Mais voilà maintenant ce que je propose avec tout ça là. Voilà. Donc, tu l'as dans la nec, tu faire de sagou sagu Gour, ay dàll yu jaxase der ak wax der ak raffia der ak toile d'Égypte. ma ngi dund ci art bi depuis 92. ci liguey bi nak dafa metti lekk na liggéey boo xamante du liguey bu yomb nit ñi ko gis rek apprécier mais au fond ce qui est dedans franchement yéen ni ngeen def ni pour ñu gëna mëna comprendre liguey bi naka la ça me fait vraiment plaisir pour que les gens savent que il y a de ces gens man mi defal li amna 50 derrière. il y en a d'autres qui sont au plus fond en bas au trou il faut que aussi nous ñi comme nous l'avons di def les recueillir de leur donner une nouvelle chance pas des coups de main comme de l'argent mais des coups de pied même c'est bon même si ce n'est qu'une une fois nous ñu avancé Tout avancer aussi ci li def parce que j'ai eu au moins une passage chez vous et ça m'a fait au moins un peu ça m'a poussé aussi à créer de plus encore et nous ngeen ci magasin.

nuyu yéen ñëpp ñoom Maïmouna Sy ñoom euh, Yolande. non foog ma dem wuti ci wuti benn benn benn veste bu baax sol ko. Eh, non ceeb ah waaw waaw gilet bi waaw non gilet bi. <laughs> ولا ساكا مامي نو بوغ كاني نو اي فوغ بور اي تي فوغ ديلي اي فوغ ما وني كو صاح تي تام تام امنا لين في وخانتي وون دال وا لا لا وا امنا لين في وخانتي وون ني وون نان دال دي نين غور غور با بين كو تي ني اي داكتي موم فوغ مو واخني موم بان لاني كاتشي اي غيسنا كو كاسكيت اي دال غاتو في ساك ديفنا في كاسكيت غيسنا كو مو مو مو مو يوري تاميت جانر خاوما كومبانسي لا مي دال مي دال خاوما دال بان لا تي جيل دونك ريبورتاج لا بو خامني دنج كو ديف ان مارج فيسي disgraphe bi mhm. amoon. Mhm. Euh, ne vraiment chaque mhm. bi da ciy baax moom tàngoor bi dinaa jël 4 bet ak gilet bi. waaw waaye bruit bi dafa ko fekkee waaye man mii soloon démb 4 bet ca vendredi ba. di la seetaan. dem bureau toog di sutura. voilà donc ceeb ku kii mooy Thier Art. comme ni nga ko gisee mu nuyu équipe tam tam yëpp nag vraiment c'est un fidèle téléspectateur boo xam ne def ñu topp ça su nekk. Euh, ci biir euh, tam-tam. ñu indi comme ni ma ko waxee sànq pour wane li ñuy def. Mhm. wante fi mu jeexalee Yolande moo am solo. waaw nee na ñi nga xamante ne ñooy seen ministère de tutelle dañ leen war a effectivement waaw et je pense que ne loolu euh, c' est un appel boo xamante vraiment war nañ leen si taxaw bu baax a baax waaw ñu ngi def lu ñu mën moo tax bu ñu toogee ba gis ne kilifay réew mi dem nañ ba ne mhm. dañu bëgg taxawal benn semaine boo xamante made in Sénégal lañ ko mhm. tuddee je pense que ne semaine bii di ñëw incha allah lañ koy def ci Dakar mhm. mhm. lolo am solo la genre tiers art yi ak ñeneen nga ne ay artisan la ñu di mhm. góorgóorlu di def dara je pense que ne loolu ay tribune la yo xam ne war nañ fa mën dem euh, ñu may leen fu ñu wane sen expertise wane sen talent mais surtout nak nit ñi di consommer mais c'est ça loolu laa semaine parce que gis nga yi euh, malheureusement Maimouna euh, ñi nga xam ne dañuy ñëw nekk ay touristes ñoo koy jënd fu mu boo waxoon Yohane Ndiaye jëndal ma lii. Mhm. mën na mu génn fu ma koy sole mhm. alors que mhm. am na noo xam ne boo ko solee dafay rafet. te wax dëgg yàlla balaa nga laax lekk nag euh, balaa nga laax jaay laax lekk. waaw balaa ngaa laax jaay laax lekk ba pare patchwork bi sax. xëy na ñenn ñi dinañ wax ne dafa bëri couleur rek mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. mais je pense que lu lu bokk suñu la itam. njaxas gi mm-hmm. Adja seetaan naa sa benn reportage boo def euh, ci déco. je pense patchwork bi ñu def si lu original. waaw ay ay couverture ak ay euh, je pense. deux tables de table waaw ay couvre-coussin ay tête de lit. loolu la ñu xaar en fait exactement. il y avait du tout dans ce patchwork là donc. Côté décoration, je suis entièrement d'accord parce que quand on dit, euh, il faut pas avoir de faut oser les couleurs. Bien faut oser les couleurs. Mais moi, côté bi may waxee euh, patchwork bi côté sol bi. franchement je pense que ça ça va être un peu compliqué. Wow. par exemple daal la ñu gis ni <laughs> mais nak ci tànn ben rek mais Adja li nga fàtte tamit moy ne. guur yeeg couleur yeeg aussi <laughs> non xam nga tey jii nii suñu waxu tendance loolu mm-hmm. je pense que mm-hmm. euh, ñu ngi def aujourd'hui euh, consommons local made in mm-hmm. Sénégal je pense que aujourd'hui suñu def patchwork bi mën nañ xol couleur yi nga xamante mom mo moo dund yi nga xamante ne tey par exemple man robe bi ma sol nii mhm. euh, su doon patchwork la yar y avoir ces couleurs là mais couleurs yi nii yëpp dafa ànd te alors que mhm. mhm. la base nag patchwork suppu la mais bi nga xamante ne moom moo koy da euh, couleur yi nga xamante ne ñoom ñoo

juste li ma remarqué mooy raffia bi. Mhm. xam raffia bi c'est très africain. mais léegi de plus en plus da ngay gis européens yi di ko jël si def ay dàll. compensé yu am raffia moom da koy utilisé day rafet te mhm. gis naa ni que mun koy utiliser. ak mhm. saak ak yooyu. je pense que mun nañu di di di di consommer yooyu. surtout ak raffia di di jël li nga xam ne ñun ñoo ko moom. mettre en valeur toujours dama koy wax ivoiriens yi par exemple da ngay gis toujours seen paañ. Ah. dañuy jël paañ def ko sous toutes ses formes. Ah. mais parce que ñoom ñoo ko moom. boo demee Mali même chose. seen cuub tout bi lañuy sol dem fépp. te fu ñu dem dañ leen di seetaan ngay Sénégal ngay gis. ku mm. dem jël affaire tubaab bi ñëw indi ko. donc juste man mais le problème aussi waaw fa waaw. mais je me dis que Adja su ko dérange su ko patchwork bi par exemple dérangé. Mm-hmm. c'est parce que tàmmuloo ko. Mm-hmm. Mm-hmm. mais buñ ko magalé won buñ ko ah, màggaale woon. on allait on allait l'apprécier. c'est parce qu'on n'a pas à la base base tey suñu defoon benn sondage. Euh, par exemple pour ce qui est du patchwork. qu'on se dise la vérité ñun ñep il ma dérangé il m'a dérangé. si tu as tellement de fans. boo génnee nga sol robe de soirée en patchwork. Mhm. ça va être la mode. C'est clair c'est vrai après ça aar. Euh, <laughs> ah. donc aar. Ah. robe ci salon ko seetaan aar commandé naa la benn robe patchwork bu toj comme su dee euh, samedi prochain su ma ko mënee am sax ma mm. sol ko ci plateau bi. jeex na donc euh, c'est le déclic. <laughs> jaay ko ci chic shop. <laughs> mu ngi noonu waay semaine prochaine dina ñëw ci Made in Sénégal di Maimouna. waaw semaine prochaine euh, dina ñëw ci Made in Sénégal salon bi. wax noonu mu war am Dakar. ak tamit un peu tamit si textile bi ak styliste ci lu xaw mhm. mais surtout moom spécialité mooy tissu. Euh, jean d'accord waaw jean euh, je pense que c'est une première partie bi mhm. Mm. safari fan yi moom temps yi mm. moom seen clip bi moom. Mm. xam naa soriwul ak li kii wax sànq de. loo xam ne c'est sucré. Euh, euh, ah. <laughs> ci yegg bàyyi ma man ci yegg. c'est sucré, ah. c'est bon. et c'est mais voilà et c'est doux. mais voilà ça peut être fondant. j'espère que vous avez compris chers téléspectateurs. Euh. mon chocolat safari chocolat yëpp ku ci nekk am sa chocolat jox nañ la ko <laughs> waaw affaire bi yow la. <laughs> <laughs> Wow, euh, c'est vrai que chocolat nak mom fondant en plus avec euh, un peu de fraise Abdullah. Wow, chocolat mom yakarna naa ñi ko bañ de quoi. caramel nak. tu préfères des bisous sucrés ou des bisous chocolatés. <laughs> mais les deux. En tout cas, c'est vraiment un mm. clip euh, mm-hmm. magnifique. Hein? Ouais, ah ouais, je pense que c'est des jeunes filles qui montent et qui s'affirment. Oui, et puis voilà, qui font des choses très belles. Effectivement. Ah voilà, et puis d'ailleurs progresser. Wow. Voilà, l'autre aussi, c'est à souligner. Tout à fait et puis bon à menu ñuy hmm. le gars qui est dans le. club, c'est chocolat <laughs> chocolat, <laughs> chocolat caramel il est caramélisé. il est caramélisé <laughs> euh, elle va recevoir beaucoup d'appels. elle vont recevoir beaucoup d'appels. appel de qui. oh je sais pas adoré. <laughs> ah oui, il est trop nice. Franchement, euh, voilà, euh, c'est à saluer. Ah, alors, oui. maintenant, voilà. Et, genre, et ce sont des femmes. Eh, Mais mm -hmm. sont, exactement. Et euh, ce sont ces clips-là qu'on peut mettre au niveau international, que ce soit côté sonorité, musique bi, paroli et tout ça. Ça passe partout. Mieux <laughs> pour mon que déglou et image Il Beautiful. Donc voilà, Elles ont leur style en fait. Elles ont leur style. Elles ont leur style. Et c'est important quoi, parce que la musique, tu mm-hmm. as beaucoup d'effets. Tu as exporter. Musique, Sénégal, qu'est-ce que mais je me dis que c'est du gâchis. maintenant. Hein, ouais. il y a deux il y a deux ça. ça <laughs> ah, <laughs> chocolat finalement. C'est mhm. doux. c'est ah, très doux même. En tout cas, ni mhm. et puis bon, c'est ce qu'on attend aussi hein, Sénégal bi euh, bo euh, foog nga def lo xamantene ken kenn mhm. donc euh, occasion la aussi ñu si saluer au passage ñi nga xam ñoo nek seen ginaaw muy les frères euh, Mballo. ñoom mhm. Moussa. Papis ak wa Bàcc. waaw ñoo def liggéey bu rafet bobu machallah en tout cas félicitations à elle. Mhm. c'est jamais facile surtout pour ay jigen kon nak dañ leen di encourager. mais voilà le groupe Safari di leen féliciter bu baax. alors Abdourahmane c'est le week-end. oui c'est le week-end. Actu Culture. Actu Culture, oui. ñu daal di dem xol non <laughs> alors euh, c'est vrai euh, euh, le dernier clip de Safari. c'était pas les Gelongal. Mhm. Euh, ah. ñeneen ñoo ko woy. Ah, ah ñeneen la. waaw ñeneen la ah ok ok ok mhm. Mhm. mais mu voilà man ah, am na Adja. Reverse Studio voilà. ñoom ñoo ci merci beaucoup. ok merci beaucoup. couple bi ñu gis d'après toi c'est un couple marié ou pas dans le clip. Euh, dans le clip, <laughs> ça peut être un couple marié. Ah, ah. Pourquoi pas On peut être marié, mhm. être heureux, vivre des moments exceptionnels comme on l'a vu Dans, dans, le clip. C'est pas parce qu'on est marié que mhm. on est Non, mhm. vivre. Hein. Sortir, sortir, sortir, dresser bien la table avec les chocolats, les fraises et euh, tout ce qu'on a vu dans le. Non, non, d'accord, Il faut pas attendre les grands moments euh, pour, vraiment faire dresser la table. tous les jours. Chaque jour. samedi Ah. moom sa bopp yow ak sa àllaa ji ngeen ah. defar ba mu baax ah. agriculture ci la baax agriculture mu ngi noonu alors agriculture euh, waaw dañuy commencer par euh, la nuit des lauréats waaw des moo gën de hmm. lauréat hmm. moom mooy ñi nga xamante ne nii ñoo demoon FESPACO

marqué euh, Moi, le fait que nous valorisons euh, mm-hmm. parce que pour n'est que dans mm-hmm. un dans un monde de débauche ah, mais euh, yor dom bu febar bëgg ko malheureusement au moment où mhm. muy am xaalis bi ko war a mhm. elle vient fekk ñu amputé euh, euh, tànk dom ji les femmes sont des battantes et je pense que c'est ce que Alain Gomis voilà dafay wane un peu la femme la femme pas un peu beaucoup la valeur la femme brave qui va s'affirmer aussi li nga xamante aussi parfois góor ñi duñ ko nangu mhm. alors bi muy dem di delu ci ah, ci mi woy mhm. tu as voulu être fier tu as mhm. voulu être truc il faut assumer et cetera parfois aussi waaw voilà du dara <laughs> voilà félicité <laughs> donc euh, loolu mu donne ben film nga xamantene aussi euh, jël ay prix yu bari et puis muy wane aussi euh, parce que Sénégal li mu def aussi FESPACO c'était exceptionnel voilà euh, trois étalons d'or ben qui, ben, ben édition c'est pas évident aussi rek que ne peut-être li nga xamantene jot nañ ko def ci walu mhm. jàppale cinéma moy mhm. fond d'aide euh FOPICA bi nga xamante mi ngi commencé jur ay résultats et mhm. surtout ko dañ kay yok waaw voilà 2 ko deux milliards mu dol li nga xamantene ni ce sera exceptionnel et euh, on espère que dina jur yenen talent ak yenen étalon d'or fële fële mais suite à ça on a inauguré une salle de cinéma aussi oui, non il y a aussi une salle de cinéma comme Cana Olympia moo tudd la léegi ñu jëlal la ça voilà <laughs> donc à Olympia et je sais que voilà il faut euh, voilà aussi que ça mhm. bouge. le ah. cinéma Sénégal parce que Dakar aussi euh, façon le salle de cinéma. Dakar c'est une capitale culturelle. aussi et puis euh, donc voilà l'initiative donne initiative bo xam dañ ko saluer. Mhm. d'avoir chef de l'État mo demoon inauguré ko. Mhm. donc comprendre l'importance. bi je pense que Sénégal légui amna déclic. moi comme les même la wax que culture le divertissement. industrie derrière dafa am ñu ci liggéey ñu et cetera. 2017 c'est l'année de la c'est l'année de la culture donc euh, voilà donc nous allons aussi. tout le cinéma Mickey bi waaw Mickey c'est pour les ah. enfants. ah ça veut dire quoi elle est grande ah mais ben voilà. <laughs> Ah. oui non c'est pas le Stum c'est mm. monsieur Boudbois nous 7 ans monsieur Boudbois. Oui, voilà mm-hmm. monsieur Boudbois dafa un dem du jogging ndeysaan pour defar forme bi. Mhm. forme am lu ko ci fekk nag mu am nat waaw moom nag euh, bant la euh, bëggul ko ko jàppee bant. ah waaw xale yi waaw voilà ñu <laughs> xool ñëwaat. <laughs> Bois vit dans l'arbre familial, en compagnie de sa chère Madame Boutbois <laughs> et de leurs trois petits bouts de bois. Un jour, Monsieur Boutbois décide d'aller courir de bon matin. Oh, oh, oh. Un bâton Je ne suis pas un bâton. Tu ne vois pas, je suis Monsieur Bout de Bois. Dans l'eau Dans l'eau Apporte Je ne suis pas un arc Je ne suis pas une batte <laughs> Ni un boomerang Non <laughs> Je ne suis pas un crayon

cours boo seetaan nag mi ngi am fële samedi ci institut français à partir de 16h. 16h waaw tey ci sam tey ci 16h ci après midi bi waaw. Ah, waaw mais waaw c'est pour les enfants aussi parce que programme bi kenn aussi waruñu mm-hmm. fàtte xale yi. xale yi waaw voilà c'est très c'est très de faut bëri dafa am imagination Mais doon xalaat bu fekkoon dañ ko doon adapté Afrique xam naa dañuy jël bourbois bi daf ko galañ. daf ko waaw <laughs> daf ko lu si nekk yooyu quoi donc ah, tu vois y a beaucoup d'imagination

art moo nekk nii tableau d'art mhm. euh, fii galerie Léopold Sédar Senghor la bu euh, fële ca village des arts ah et puis euh, fii la ñu defee woon ouais ouais man japp na ni ñii dañoo Carrefour des Arts Carrefour des Arts <laughs> <laughs> donc euh, voilà les oiseaux de Séa et puis boole défilé ak mode ak euh, voilà donc voilà mu donne ben événement bo xamante ne nii ñu ngi xaar lu mat plus de 500 personnes si lañu wax ay invitation donc initiative aussi bo xam ne combiner plusieurs formes d'art d'accord voilà ñu jéxalé ak mhm. livre euh, bon comment nga le doyen Ali mhm. euh yalla Souf sedd ci sedd lañ ko mhm. livre bobu nak euh, mi ngi doyen le transmetteur intégral. d'accord c'était un grand lecteur. il lisait beaucoup, il faisait beaucoup de critiques etc cetera mhm. euh, donc samedi fële ci euh, gale mhm. ah, donc euh, ay philosophe ak ay mhm. borom xam-xam yu dañu fa pour euh, mhm. présenter livre et rendre hommage à Amadi ali samedi <laughs> non encore ni moom non ci non attends non ah. damay lire samedi non donc non donc 16 ba naan seen attaaya xaw a diigal tuuti waaw bañ fa xaar deuxième bi nag parce que dañu ah, xaar ñu xaar ko nag xam nga deuxième dafa am siru waaw voilà <laughs> ah <laughs> waaw lu ci nekk deuxième bu ci nekk deuxième xam nga eh, boo koy naan da gis ne warga bi dafa fekk mu gën a ñor naanaa bi waaw day gën a saf naanaa naanaa bi waaw léegi nag ñu sànni si tuuti xorom polle waaw ba pare day gën a day gën a ah. <laughs> loolu dañ koy denc pour yow. wuy <laughs> ma bu génnee feer yi téyel téyel ana wuy ma ana pasti <laughs> baa ñu teg ko noonu rek. nañ nañ bu wax li ci dem yow. waaw waaw du baax du baax dañuy xaaj suñu ay. <laughs> kon nag bu ci kanamu tuuti. Uh-huh. boo leen añee yaa leen xam bu jaga wala suppu kaañ daf xaw a tàng. Mm-hmm. waaw mm-hmm. suppu kaañ bi sax dina baax. Mm-hmm. nag maafe nag bu leen ko kii moom dafa diis. ñelaw rek ngeen di ci teg nag.

trois ans de recevoir ay chronique am ci benn journal maa donne lire di ko parfois di relire mhm. et xam-xam macha allah. Mhm. et genre nit ñu mel nii euh, euh, jafe le Sénégal waaw jafe le ah, Sénégal philosophie économie littérature c'est un euh, homme complet macha allah moo le transmetteur intégral et puis mu doon koo xamante euh, jël na ay livre, lu mat plus de 3000 mhm. livres. Mayoko, ko Université Dakar. je pense que ne titre livre bi le transmetteur. koo xam ne day mhm. intégral. Mhm. Euh, ça veut tout dire voilà il le mérite. tout à fait c'était euh, Actu Culture hein, ak Abdourahmane comme d'habitude Mon mon bu ñëwee rek a yi daal di saf xorom. saf suukar saf chocolat boobu ngeen wax <laughs> allez dañuy dem année nag amul yokk ak tam tam chum tam-tam amul yo kokoki xew-xew bi xam ngeen ko mooy ceebu plastique bi amna senegal ma amul senegal deug la eh, ceebu plastique bi amna senegal kiko fi indi nak moy Modou Lo mbër mi ki ko digal moy serigne mo ne ko na nga lekk ceebu plastique na sa supporter waaye lekk ceebu plastique ci kaw lol mu xep ci juróom-ñaari conteneur fi ci senegal te wa parcel asini ñoko fi lek donc ku ngeen gis bir bi neewi parcel asini la dekk ndax plastique la lek tam-tam chum tam-tam amul yokk ko ki dégg ngeen ko vice président Chine moo doon def visite officielle fii ci biir Sénégal li ko fi indi nag mooy xale jigéen pël a ak xale jigéen séeréer yi xam ne amuñu jëkkër te bëri ñu may leen buuj man ak mëneel bar chinois yi ca Chine waaw ndax Chine mooy dëkk boo xam ne góor ñi ñoo ëpp jigéen moo tax waa Chine dañoo am pénurie jabar tam-tam cëmm tam ya amul yàq ko kii actualité semaine bi mooy gi waa France fal waa di Emmanuel Macron di seen président bu bees na xale la 39 ans gis ngeen ko noonu nekk ci wetu mère di yaayam am 62 ans ah du yaayam la la ak ah, jabaram bon raw lool ambassade de France bi nekk fii ci Sénégal nee na Emmanuel Macron di président France bu bees bi dina ñëw fii ci Sénégal en visite officielle le 17 octobre 2017 bu ñëwee dina visiter île de Gorée moom Emmanuel Macron nag na bu ñëwee bëgg naa xamante kii tax Sénégal mooy Mbacar Ndiaye Emmanuel mii bandi la yoo oh, <laughs> mu nekkoon euh, busy euh, hmm. dans ses œuvres euh, c'est vrai c'est toujours un plaisir moom de recevoir ko ci tam tam mu nekkoon tam tam samedi <laughs> Maymouna bon week na merci beaucoup waaw fas yéene dem taaji ceeb bi. dafa ba mu baax waaw teg ataaya bi bàyyi luwal bi ñor. waaw bu deuxième bi ñëwee nag ñu bàyyi mu gën a ñor. saf naana. <laughs> waaau ngun-ngun gi mhm. naana ordinaire mhm. naana mant mhm. naana faat tuuti ji njeex <laughs> xorom polle bi <laughs> merci beaucoup <laughs> ba samedi prochain incha allah. Mm-hmm. ci beneen tam tam de ah. incha allah waa nag pare koor gi. xalé yu jigéen ni koor gaa ngi dikk mhm. waroon ngaa ñëw nag ci ci suukaru koor rek ñom seen mhm. daaw ñewon nañ ci de waaw ñëwoon nañ ci ah. waye fàttali nag yàqul dara mhm. la répétition elle est pédagogique ah, ah, merci maman yow maa ngi maa ngi sant di remer di gërëm di remercier tey spectateurs RTS 2 yépp di leen wax ni damay kontaan di ànd ak ñoom saa su nekk ma ngi remercier sama coiffeuse euh, Simone nekk euh, West Foire ci Taliwali mi ngi ci 77 322 60 52 sama dong? iya ma. gaw gaw nggak ada taaji ay. lay iya bu bah wow wow wow, demi nyorek, dem suma yegsee serik sumi rob udah Wah, udah bas, udah na bah. Wut suma tai bas, bu bah. Sol kan nak jaga, dan nak monsieur Dumbia. Na nekk sur, nak deh sur, kay iya, man duma sur lah sur, sol ma. Wah, kayak mingin, ngi <laughs> donc je remercie vous baax a téléspectateur de voir, que c'est toujours un plaisir d'être là le samedi avec sama yaayu Bop. donc je remercie la boutique euh, Chic Shop. Nek foofu ci amitié 3. et puis la boutique existe réellement. Ah, bah, bien sûr qu'elle existe. <laughs> loolu seen wax man ah. ba romb ci buntu bi taxaw mu ne ma ay chic choc ma ko waa kay fii chic <laughs> donc euh, voilà ku bëgg yu baax yu melni rek muy ay eau ay robe ay leggings jupe lepp a ngi foofu yëre été y a tout mhm. même corps gi sa am na loo xamante ñu ngi koy wajal suñu clientes yi donc nañ ko paré donc c'est numéro téléphone nek 78 533 95 95 di remercier tamit sama magu bopp muy joojo ci bop yu baax yi nga xamanté mom la may defal saa su nekk donc périg bu baax bi mhm. nga xamanté ne mom été ba nga dugg mëna ma am bii moom demal rek nga tam tamtamee ko moom aussi ko bëgg lu mel nii rek da ngay woote ci 78 012 05 08. y' a même des des patchwork à. waaw <laughs> y' a yaa ngi fay añee yaa di bàjj rek. oui yow fay añee. man de voilà maa ngi nuyu mbokk yi. <laughs> di nuyu mbokk waaw. sama kër papa sama kër yaay. <laughs> non wala pizza yi kii ah. wala hamburger <laughs> yi. donc euh, <laughs> mais kor gaa yi ñëw. waaw añ moom léegi ñun ñëpp maasale. waaye duñ la taajal <laughs> donc du nuyu téléspectateur. waaw di leen gërëm di leen tàggu di leen jox rendez-vous mm-hmm. très bientôt mardi incha allah. mardi ci beneen rubrique. Euh, mais ce sera avec Yaxam. avec Yaxam oui elle est revenue. Yaxam est

dañoo jógee ci seen far gor góorgóorlu leen ci ñun di leen jaajëfalaat encore une fois bu baax baax di leen souhaiter un excellent week-end et puis euh, lundi ce sera avec Yaxam ñu fanaan ak jàmm.